waaw ah, salaamaaleykum mbokk yi nga xam te ni yéen a ñuy déglu ak dañuy topp ci rawatina émission boobu ñu tuddee sunu yaakaar seen mbokk Ibrahima Diop dellu ngir waxtaan ak yéen ci li nga xam ni mooy injil di xibaar bu baax bi nga xamante ni moom la yàlla may yenn ci ay nit wala ci taalibe yi nga xam ne ñoo doon ànd ak yéesu ñu bind ko ci kàttanu xel mu sell bi ñu ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëmaat di ñaan ñi nga xamante ni dañoo tawat yàlla fëgg seen bopp ba nu mën a jóg ñi nga xam dañoo nekk ci ay jafe-jafe it yàlla génn leen si ah ñëpp ñi nga xamante ni tamit dañoo ñàkk jàmm yàlla jàmmal leen waaw ñi ngi ñaanal ñëpp di ñaan jàmm ci réew bi tamit am mbégte teewaat fii fas yéene wéy suñu jukki boobu nga xam ne tàmbale woon nañ ko ci téereb màcc comme ni ma ko waxee màcc bokkoon kenn ci fukkit ndaw yi ak ñaar yi àndoon ak yeesu jamono ji mu nekk ci kaw suuf Mathieu ab juuti la woon tamit daan dem ci béréb liggéeykaay ca marché ya daan fayeeku juuti moom moom moo bind jaare ko ci kàttanu xel mu sell bi ci dundu bi yeesu jotoon nañu euh, saytu wala gëstu si ñaari saar yi nga xamte te ñoo njëkk ci téereb Mathieu muy saar benn ak saar ñaar gis nañu ni nga xam te noonu la yeesu nekkee mbokk ak nit ñi waaw sët la ci maam Ibrahima sët la tamit ci maam Daawuda gis nañ tamit ni nga xamante ni kii di bàyyi jidleem di yusufa noonu la naroon a xaacoo ak yaayam ndaxte laata mu doon yegg si moom dafa gisoon ni dafa ëmb waaye gis nañ tamit ni malaaka yàlla feeñoo yusufa xamal ko ni xale bi mariama ëmb ci kàttanu xel mu selib la ëmbe du jëfu beneen góor kon mën ngaa wéy sa yé mën ngaa wéyale sa yéene ci mariama ci noonu tamit gis nañu ni yusufa topp na li nga xamante ni loolu la ko malaaka bi santoon gis nañu ni yeesu juddoo gis nañ tamit ni ay borom xam-xam jóge fu sore penku ñëw ngir màggal si ko ngir gane si ko seet si ko gis nañ ni leen buur ba dogalee woon it ni leen buñ fa yeggee ba xam fa xale bu juddoo nañ ñëw yëgal ko ko ngir moom mu dem fa waaye gis nañ ni buur bi li mu bëggoon mooy su fa demee mu yaay xale bi ndaxte buur li mu bëgg mooy ki koy doon doon doomam waaye bëggul keneen jël place am loolu moo doon yéenam gis nañ ni malaaka borom bi tamit feeñoo woon yusufa ni ko na jóg jël mariama maanaam day yéesu ak yeesu ñu daw dem misra toog fa ba ki nga xam ne mooy buur bi erod faatu ñu dellu si waaye bu ñu ñëwee ñëw ñu Yerusalem dañoo dem ci dëkk bu ñu tudd Nasaret foofu lañ dem toog fa loolu moo tax ñu doon tuddee yéesu Nasaret Nasarien bi maanaam waa Nasaret tey dinañu xool saar ñett ak saar ñeent ba léegi ci téere bi màcc boobu ñu xool ñu jàng aaya bu njëkk bi mu ne ñu ne ca jamono jooju Yaxya feeñoon na yonent yàlla yaxya di waare ca màndingu yude nii la nii la doon waaree tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguuru yàlla aji kawe ji jege na yaxya kon daan waare naan nit ñi tuub leen seeni bàkkaar ndaxte yu nguuru yàlla aji kawe ji jege na yaxya mooy ki ñu doon wax jaarale ko ci yonent yàlla esayi bi mu naan am na baat buy xaacu ca mànding ba naan xàll leen yoonu borom bi jubal leen fi muy jaar ma baamtu ko yaxya mooy ki yonent yàlla Isaayi doon wax naan baat dina jube ca mànding ba am na baat buy xaaju ca mànding ba ne xal leen yoonu boroom bi jubal leen fi muy jaar comme tey niñ ko gisee bu njiitu réew wala ab kilifa wala borom daraja buy jóg di dem dafa am ñoo xam ñoo koy jiitu waajal yoon bi xàll yoon bi waajal fa mu war a nekk lépp yaxya yoon si yàlla yaxya daanaka pas loolu pas-pas boobu la amoon loolu moo doon li nga xam ne moom moo ngàlloon ci ay ci ay mbagga maanaam waajal yoonu borom bi nu ngi ko doon waajalee da doon ñaax nit ñi tuub seeni bàkkaar comme ni nga ko jàngee ci ay njëkk yi tuub leen seeni bàkkaar ndaxte nguuru yàlla jege si na yaxee nag mu ngi soloon mbubb mu ñu ràbbee kawaru gëléem takk geñoog der ci ndiggam ay njéere la doon dunde ak lem maanaam moom dafa wàkkirlu woon ci liggéeyal borom bi rek dara safu ko woon dara ñor ko woon comme ni nga ko gisee fii léegi rek danaan mbubbu der bu ñu ràbbee kawaru giléem la daan sol. geño der geño comme bu ko ñi xamule mooy ceinture moom la daan takk ay njéeréer ak lem la daan dunde njéeréer ak lem noonu ñëpp génn jëm ci moom ñu dëkk Yerusalem ak diwaanu Yude ak waa dëkk Yordaan ñu nangu seeni bàkkaar yax yee sóob leen ci dexu yurdaan donc ñi daan nangu seen bàkkaar ñi daan nangu tub seen bàkkaar di wut njéggalu yàlla yax da leen daan sóob ci ndox muy ndoxu ci dexu yurdaan noonu ay pharisiens ak ay sadducéens yu bare ñëw ci yax ya ngir mu sóob leen ñoom itam ca dex ga waaye bi mu leen bi leen yax gisee mu ne leen yéen ñi fees ak dangar mel ni ay coow ku leen artu ngeen daw merum yàlla mi nara wàcc wàcc jëfe leen nag ni ñu tuub seeni bàkkaar tuub sa bàkkaar ba pare yaxee da si doon da nga war a jëfe ni ko tuub say bàkkaar nit bu defee ab jëf bu ñaaw mu tuub ko dafa war a doxe wala mu jëfe ni ko tuub loola ni yaxee daan ñaaxe bu ngeen ñëw ba nangu seeni bàkkaar ba ñu sóob leen ci ndox da war a doxe wala ngeen jëfe ni ñoo xam ne dañoo tuub seeni bàkkaar te bu leen wax ci seen xel naan nun daal doomu Ibrahima lanu ndaxte maa ngi leen koy wax yàlla mën naa sàkkal Ibrahima ay doom ci doj yii semiñ wi tiim na reeni garab yi garab nag gu meññul doom yu baax dees na ko gor sànni ko ci sawara boo juree jiwee ab garab ci sa kër meññiwul wala la muy meññi baaxul amul la benn njëriñ donc danga nga koy gor rek sànni wala ñu defee yee ko mot wala nga sànni ko ci àll ba nit ñi taxanee ko defi ko mat mujjee ca taal wa man maa ngi leen di sóob ci ndox yaxe mooy wax mu ne man maa ngi leen di sóob ci ndox ci lu ànd ak tuub seeni bàkkaar waaye kii ñëw sama ginnaaw moo ma ëpp kàttan ba yeeyow ma ko yóbbul sax ay dàllam donc comme ni ko waxee yax ya danaan xàll yoonu borom bi am na nyukaran ñu ko daan laaj ndax yow yaay borom bi ndax yow yaay almas mu leen déet moom la doon leeral fii ci aay bi man maa ngi leen di soob ci ndox ci lu ànd ak tuub seeni bàkkaar waaye kii ñëw sama ginnaaw moomu ëpp kàttan ba yeyoo mu ko yóbbul sax ay dàllam boobu Yaxya mu ngi wax ci ki nga xam te moom mooy topp si ginnaawam di ñëw muy yéesu di yont yàlla Isa moom la doon wax naan moom lay waajal yoon kooku dina leen sóob ci xel mu sell mi ak ci sawara dina leen sóob ci xel mu sell mi maanaam ñi nangu jëfam ñu nangu li tax mu ñëw dina leen sóob ci xel mu sell dina leen feesal xel mu sell may xel mu sell ñi bañ ñu nanguwul tamit li tax mu ñëw mu ne dina leen dugal ci safara layoo mu ngi ci loxoom ngir jëri dagga ja ba mu set pepp ma dina ko def ca sàq ma waaye xatax ba dina ko lakk ci sawara su dul fay mukk boo boo bàyyee ba pare ba góob pepp bu baax bi bi nga war a jëfandikoo ngir yow ak sa njaboot wala ngir jaay ko wala ngir jiwaat si an euh, beneen at bii ñëw danga koy sàmm waaye la nga xam te ni xatax la wala ay xaaxaam loo xam ne amul la benn njëriñ danga koy jël nga lakk ko su fekkee ni bëgguloo tilimal alam gi bëggoo tilimal sa kër loolu loolu yëpp nag da koy jël lakk ka loolu lay wax fii donc ñi nga xam te ni ay baykat lañu xam nañu kàddu yi li muy tekki ñu ne Yaxya sóob na yéesu ci dexu Yordaan booba yéesu jóge Galile ñëw ngir Yaxya sóob ko ca dexu Yordaan waaye yaxya gàntu ko ne man maa soxla nga suub ma ci ndox te yaa ngi ñëw ci man yeesu ne ko bàyyi noonu ndaxte war na noo mottali lépp lu jub noonu yaxya nangu kon yeesu ci dëgg soxla ñu soob ko ci ndox ndax gis nañ ci ñaari ay yi ñu njëkkoon jàng malaakam borom bi neewoon na yusufa mariama ci kàttanu xel mu sell mi doom ji mu ëmb ci kàttanu xel mu sell bi la ko ëmbe donc yeesu ma nga asamaan deful woon bàkkaar fàttaliku leen ni yaxya ñoom ma nga doon sóob bàkkaarkat kadi ngir ñu tuub yeesu deful woon bàkkaar soxlawul woon ñu koy sóob ci ndox ngir jéggalu bàkkaaram waaye da ko doon def ngir firndeel ni li yonent yàlla yaxya di def lu dëggu la li yonent yàlla di def yàlla moo ko ko sant loko donc da doon indi firnde da doon firndeel wala da doon dëggal li nga xamante ni moom la yonent yàlla yaxya doon def bi ko yaxee soobee ca ga génn ca saasa asamaan yi di ubiku. te Yaxya gis xelum yàlla wàcc ci melo pitax ñëw ci kaw yéesu te baat bu jóge asamaan dégtu ne kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom laa amee bànneex baat moo jóge asamaan naan kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom la amee bànneex fàttaliku leen njàngoon ay weesu malaakam borom bi neewoon na yusufa mi naroon a xaacoo ak mariama ndaxte mariam dafa ëmboon mu ni ko doom ji mariam ëmb ci kàttanu xel mu sell mi xel mu sell mi mooy xel mi nga xam te ni moom moo jóge ci yàlla ci kàttanu xel mu sell mi kon doom ji mu ëmb ci asamaan la jóge fii baat waxaat ni kii mooy sama doom ci ma bëgg ci ci moom la amee bànneex yeesu amoon na comme ni nga waxee ngërëmal yàlla amoon na bànneex ci yàlla yàlla loolu la yàlla wax fii ni moom la wax yax kon gis nañu ni yax da doon waajal yoonu borom bi di sóob nit ñi ci ndox di leen tubloo seeni bàkkaar naan leen am na kuy ñëw xaal leen yoonam kooku moom mooy borom bi naka lañ ko war a xàllalee yoonam naka lañ ko waale wala waajale yoonam mooy ñu tuub seeni bàkkaar te ñu sóob leen ci ndox gis nañ tamit ni yeesu ñëw na yax ya sóob na ko ci ndox waaye laata ma ko doon sóob yax ya gàntu woon na ko waaye yeesu ni ko bàyyil ñu def ngir li nga xamante te ne loolu lañ ko noonu la ñu bind mu mën a mat waxoon naa leen tamit ni yeesu soxla woon ñu koy sóob si ndox ngir jégal ko ay bàkkaaram ndaxte deful woon benn bàkkaar waaye da doon war a bëgg firndeel li nga xamante ni loolu la yaxee di def ni loolu dëgg la yàlla moo ko sant ci yàlla lu jóge moo taxoon Yeesu bàyyi ñu sóob ko si ndox ginnaaw bi ñu ko sóobee ci ndox tamit ba noppi mu génn ci ndox bi ñu ne petax wàcc na ci meloom xel mu sell wàcc na ci meloom petax taxaw ci mbaggam noonu baat jibe asamaan naan ni kii mooy sama doom ji ma bëgg ci moom am naa ci moom mbég bu ngeen amee ay laaj mën ngeen bind numéro yi nga xam te moom ngeen di gis noonu ñu bind ko mën ngeen ci woote mën ngeen am na whatsapp mën ngeen bind tamit ci suufu njàng yi tamit ñu mën a waxtaan ak yéen tamit ci seen ay laaj jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel ñu ngi leen di jox dox daje beneen yoon ci yeneen jukki tamit jërë ngeen jëf jërëjëf yéen ñi nga xamante ni yéen a ñi doon topp si suñu page youtube e, di leen wax ni jërë ngeen jëf si li ngeen di wéy di ñu topp di seetaan vidéo yi te di leen ñaan ngeen mën ngeen ko partage ak seen ay xarit mën ngeen si waxtaan te itamit su ngeen si amee ay laaj mën ngeen ko mën ngeen ñu ko laaj mën ngeen aimé waaye itamit mën ngeen abonné wu itamit si page bi bu ko defee di ngeen mën di gis vidéo bees yëpp yi ñuy dugal si janggale yonent yàlla insa jërë ngeen jëf na leen yàlla barkeel